Allah bokk yi fi daje ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu mag yu baax yi toog ñu tàmbali ci xalifa bi ak ay rakkam yépp ñoo jël seen mbégte ak seen kàddu ak seen yaakaar jox la ko jox ko xadara bi mu mel ne yëg def bokkul ak tëb def yëg def mooy xam li ñu la dénk xam ne lii kat njabootuk Seex Seydi Xaaji Malick radiyallahu taala anhu ñoo ko organisé ci seen turu wayjur ci seen turu sëriñ Seex Seydi Xaaji Malick ndax lii lépp li muy rafet lépp liggéeyu Cheikh Seydi Hadji Malick la ndax moom mooy ki nga xamante ni de ku mu àndal yar la nga mel ne moom ndax moom moo ko wax kon alhamdulillahi rabbil alamina keroog bi yàlla dogalee nga xalaat ne danga bëgg a ñëw kër ngunta muy tànk yoo xam ne nii sa wéjur sëriñ Mamadul Mansoor bëggoon na ko waaye ci yow la ko yàlla dogale kon ñu ngi lay wax jëf sa mag sa xarit di sa lépp di sa soppe mooy sëriñ Mamadul Moustapha Sy al mustatidin wal mustatidaat moom i tamit bi mu yëgee na dangay ñëw wax na ne na ngeen dem teertu ji sëriñ Habib wax waa télévision ne leen na ngeen fexe ba teew fa moom i tamit imaam Moussa Gueye sax la ko yóbbante woon kon moom itam mi ngi am mbégte ci sa ñëw sëriñ Mansour Jamil mi nga xam mooy sa mag di sa lépp te yàlla dogal mu war a ñëw suba insha allahu ñu fas ko yéene teertu te nga liggéey li nga liggéey mi nii ñëpp xam ne yaa ngi moom benn ngéen moo tax sa jataay bi tedd yàlla la yàlla fay ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sa tànk yi tànk la yoo xam ne nii manees naa wax ne ci ndigalal sëriñ Babacar la ndax sëriñ Babacar moo waxoon ne njaamur su ma amoon xottu gerte danaa ko bokk ak njaamur te loola feeñ na kon dëkk bi jigéen ñi góor ñi comité organisation bi ñépp ñu ngi am mbégte tey moo xamante ni xam nañu fu mu commencé waaye kenn xamul fu mu yem yàlla na la yàlla fay nun li ñu xam mooy nekk rek njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ndax ngunta muxaddam yi nga xamante ni leen Maodo dafa waxoon nañu ber seen gàmm ca la ngunta bokkoon waaye ngunta dafa wax ne moom digganteem ak Cheikh Seydi Hadji Malick ba ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom du bàyyi mukk mi ngi feet Cheikh Seydi Hadji Malick kon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku fi dikk yàlla na yàlla faj sa xaajo ci barke Cheikh Seydi Hadji Malick ak ñamu ko bokkaloon yal na yàlla fay leen ba déwénate insha allahu ñi ngi gërëm ñépp alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada amma baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi ginnaaw ba ñu santee suñu borom dëggi dëggi sant julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu borom bu baax bi ñu mayoon ñu daje fi daaw dajewaat fi ren te damay nangoo ci làmmiñu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour mu wax ni dundul ren ba déwén pexe doomu aadama yeggu ci nammeelu yàlla la sëriñ bi ku fi dund daaw ren nga toogaat di wax c'est parce que yàlla la baaxe ci diggante bi bari na ñu fi jël te defuñu ko dara yow ak ñi mu fi bay defalu leen ko dara kon ak mbaaxam la jiital ci nuyoo nag tabaarakallahu ay may waaye bu ma ci paree rek teg ci suma sëriñ suma soppee sëriñ Habib si bay daam sëriñ Habib daf ma defala defala defal ba dootuma def waaw kay bay daam nee na dañoo defal defuñu wallaahi waaw nee na defuñu waaye daf ñoo defal bàyyam bu baax di sëriñ Mouhamadul Mansour da daan wax naan ku daan daj lu ne te mënoo dajale dara dajatoo dara di dajale lu ne am na koo dajal koo waxul déggu leen ma de ku daan daj lu ne te mënoo dajale dara dajatoo dara di dajale lu ne am na koo dajal ku daje kër Seydil Hadji malik sa xol sedd waqat ba dafa ni maa lanaa fil ni si war rahmaani wal Moustapha lu mu ci teg du foofu la yemoon man ma dolli ci wal madrasa al malikiya ba Cheikh ñun kër alaaji Malick la ñu am suñu borom suñu yonent Cheikhuna Tijaani ak kër alaaji malik ak école alaaji Malick lu fa am doy nañu billaahi ku féete woog moom ba sa xel dalul dara dootul dalati billaahi léegi bi ñuy bi ñuy tëj ñaan wasifa bi suñu baay bi ba baay bu baax bi di jàng bay jàng alaa ya rasulallah kenn du sa maam ni muy ñaane yàlla yàlla munu koo bañ a may alaa ya rasulallah woo sang bu tedd bi di rasulillahi di ko takkali garab ni ko yaa afdalal wara yow mi nga xam ni yaa gën ci lu yàlla bind loolu moom ku bëgg ak ku bañ yonente bee fi gën faha nahnu fi diqin shadidi tarakumi ñu ngi ci ay xat-xat ak i jafe-jafe faha nahnu fi diqin walam narju farijan si wallahi walhaadi li subulil makaari ay woyam li muy duggantee sax dafa garaaw si wallahi wal hadi li subul makaari boo ko bëggee dégg da ngay dem ca fala budda min shakwa ila allahi kurbati ba ñëpp jaaxle dafa ni kenn mënul régler situation yi ku dul suñu borom fa ma liya gayra allahi jaabiru kasrati samaam nee na du fëgg benn bunt ndax wa xar ya baabal xayri yaa rabbi lam yu fit li saak saraf naa naxwa baabika wijhati ni ko foofu rek lañ mën a ubbi mu ubbeeku nee na ko yow suñu borom yaa man loolu mu ni nag loolu kenn rek moo ko man muy yonent bi saddaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fi lbatni ya xayra rahimin def leen yéen taalibe cheikh yi ni ilahiya fajal ahlana ahla gurbatin wa ahla ittibaai sunnati fi tarahumi loolu sa maam moo ñu ko defal moo tax moo tax yàlla nañu yàlla fayal Serigne Hady Touré lu ñëpp bëggoon a wax Maodo ci seen xol te amuñu xam-xam bu ko génne sëriñ Haadi moo ko génne te ba mu koy génne dafa tudd kenn ci sa maam yi di doom ci sa maam abal Habib loolu du caaxande tey sëriñ Habib ñëw toog billaay tey jii ku bëgg sa affaire dina baax ku bañ sa affaire dina baax abal Habibi salil al qutbi Ousmane asrik te yii ni ko billahi yow mii di baayu Habib di maamu Habib yow mi bàyyi Habib di maamu Serigne Habib yow mi doomu maam Ousmane yow de kenn nga ci sa jamono yow Seydil Hadji Malick waaw nangu nga tëkkale waaye nangu woo dendale moo tax ba coow la baree mu ni wallaay duma ci coowante sawfa tara isan jalal xubaaru a farasun taxtaka am ximaarun loolu la sa maam waxoon Seydil Hadji Malick nee na coow li jaru ko wax ju bari ji jaru ko nañu bàyyi ba pënd bi wuri ku war mbaam ñu xam ku war fas ñu xam gis nañu ci réew mi ñu jóg ni léegi na ñëpp dégg ni jàngal kaamil ku génn àdduna amul benn njariñ du dégg ngeen ko du ñun ñëpp dégg nañ mais nit bu waxee loo xam ni da koo engagé yow gëmoo ko da koy wedde ci xam-xam waaye bul ko wedde ci coow nee nañu ñu jàng jàngal kaamil ku faatu amul njariñ te sëriñ Habib ñuy wax loolu feebar bi leen dal mooy ñoom lépp lu suñu mag ñi baaxal ñu ne baaxul lu sëriñ Touba di baax na ñu ne baaxul Alaaji Maalik ni baax na ñu ne baaxul sëñ Babacar Si ni baax na ñu ne baaxul maanaam suñuy mag la ñu bañ ba lu ñu baax la ñu ne loolu baaxul suñuy magi réew indi loolu ñu ne loolu baaxul du loolu la ñu wax pour yéen ngeen comprendre dan naan leen Buxaari yi nee na wala muslim nee na man leen bu ngeen demee ci Buxaari yi ak muslim yenent bi nee na man qaraa xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana walxasanatu bi ashri amthaliha laa aqulu alif lam mim xarfun walakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun nee na ku jàng benn araf araf mooy lettre ci téere yàlla bi am nga ci tiyaaba tiyaaba bi dañ koy multiplier par dix soog la koo fay yenente bi nee na waxuma alif lam mim araf la alif araf la laam araf la miim araf la ñu jël kaamil bi yëpp jàng ko ca araf yooyu yëpp ba mu jeex woo sëriñ Habib ni ko jàngal ñu xatba bi loo wax ñun d'accord nañ ci ñun ñu doon jàng mu ne allahuma balligh sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu min kitaabika al-azizi hadiyatan wasilatan wa rahmatan muttasilatan min ila ruuxi abdika alxaaji gunta jóob nga di déedéet yàlla du ko jox yaa soxor yàlla maam moom sama tiyaaba joxal ma ko diw nga ne non du ko jox fa ni sañta liggéey ba weddee mu defal nit procuration ni ko demal jëlali ma sama sale duñ ko ko jox salaamaaleykum waay ñu alaaji daam nee na ngeen baal ko ak mi ngi gërëm yépp waaye nee na bala mu leen a gërëm dama leen di sas damaa bëgg sëñ Habib ci sa barkeb baay bu baax ba sa barkeb maam yu baax ya ak say maamaat nga joxe ñaan ñu ñaanal alaaji Mudu Anta Jóob jàmbaari islaam ji ndax biis bii kët am na foo xam ne nii moo ko fa yeggale ndax da ko bokk ak ñun kon sëriñ bi bala ñoo def dara muy yëkkati geneen kàddu ci sa barkeb maam say maam nga ñaan ci yàlla alaaji Moodu Anta Jóob mi tëdd fii ca di du dégg bis bii tey ci guddik ajjuma yàlla jox ko cër sédd ko ndab ci tey ci bis bii tey bisimilah sëriñ bi ne fatiha salaatul fatiha fukki xul wallahu ahad ak benn ñetti ina anzalnaahu tëje ko salaatu fatiha def ko haddi ci cheikh sidi bo aboubacar radiallahu anhu ak njabootam maam cheikh alhaaji malik ak njabootam maam fahima ama yoro wele cheikhunu futiyu taal Mouhamadul Xaali Cheikhuna Tijaani Chérif radiallahu anhu nu def ko hadiya ci rasulillahi sallallahu alayhi wa moom ak way juram yëpp ak maamam ya njabootam ya ñi mu fekki ak ña ko fekki sëriñam ya ñoom ñëpp yal na yàlla jotal leen yoolub ñaan gi muy bëgg ñaan ñaan bu buñ ko yàkkamti nag nan ko teelu li rek lan ko deseel auzu billaahi mina sheytaan alaaji daam nee na ñu ngi gërëm mbooloo yépp ñaan gii ñu àndandoo ñaan ko yàlla na ko yàlla nangu te yàlla dana ko nangu xol yii fi daje yépp di ñaanal genn jëmm yàlla ëpp na loolu de dana ko nangu insha allah du ni jeexal naa mukk du ni dama leen di nax kon yal na yàlla nangul ñu ko wax ji nag du bari tey yéena ma laajoon Abdul Aziz sëñ Abib Si ma indil leen ko su ma ci bëggee boolee wax ju bari nag du ma am fulla nag kon sëñ Habib kër nguntaa ngi nii nag kër ngunta nag su ma la waxee ni la mu ngi nii dama laa war a ni la kër Cheikh Seydi Hadji Malick a ngi nii ci lu leer sama baay nee na ba kër Marema Mbay alaaji Abdul Aziz Si moo jëkk ñëw kër ngunta yàgg na loolu ñu yónni ko ci mu xaddam ñu yónni ci mu xaddam yi ci njàmbur. ba mu si joge ba mu si jógee ci li ma fàttaliku man ci li ma fàttaliku man sëriñ Abdul moo ci topp moo ci topp. ba mu ci jógee Pape Malick topp ci. ba mu ci jógee sa xarit sa mbokk di sëriñ Mouhamadou Moustapha ñëw na fii yendu fii. te booba te booba kër ngunta manqué na ndox lool la ilaha illallah dëkk bii mas naa manqué ndox lool ndax ndox gannaaw bala nga koo am dox trois kilomètres dagg teenub jàmbur bu la fa fekkee coow li ni combay ndox booba jafe na fi waaye lépp nag yàlla andi na ko fii ci barkeeb dëkk bi ak mag ñu tedd ñooñu cheikh wax nga dëgg de sëñ Habib daa toog ba mu yàgg euh, Pape Matar Lo xaritam taalibeem ko sopp wooma ni ma sëñ Abdou daal nee na dana ñëw ci yow tey seet si la ma ne ko ah këram la ñëw lu tax muy tàggoo <laughs> bu ko neexee heure bu ne naka ñëw mën na maa fëgg mu ñëw waxtaan rek nag moo indi lii waxtaan rek ko ko indi doonul woon lu mu programmé man miit du woon lu ma programmé ndax man moom du ma programmé dara ci moom wóor na ma ni fu ma ko ni ñëwal ak fu mën a doon mu bàyyi la mu doon de fekk si ma ñuy wax ba yegg ca nag mu ne ah. ma ah amul benn problème man na maa ñëw xadara ba ma ne ko bisimila ñëwal ma ne ah. ah. ku yónnee kat. ku yónnee kat. ka nga yónni ka nga yónni. da nga koy laaj la nga koy yónni. ba xam lan la ci am ci xalaat. ma woo Cheikh Xarifaal mii. man ne ko sëñ Abid kat mi ngi ñëw. mu ngi nii toog mi ngi nii toog. dañ doon wax ci affaire kër Ngunta. Eh, samedi samedi. wala ajuma mu ne ma na ko def ajuma ma ne ko kon nag bisimilah. ndax moom. du ma wut ci moom programme ndax baayam danoo am maag moom benn bis ca Tiwaawan muy bisu yeggale burdu muy bisu bi mu ma laaj daam mu ni ma laaj daam damaa bëgg ñëw sa kër damaa bëgg ñëw sa kër si seet yi ak daayira bi ma ne ko sëriñ bi ah munoo ko de ah munoo ko de mu ne mën naa ko mu ne mën naa ko de. danaa ñëw sa kër ne teg ni teg. ni ma xaaral woo ma Habib. ni ma xaaral woo ma Habib. am na ku mu woo ci bëkk néeg am na ku mu woo ci bëkk néeg yi. ni ko wool ma Habib ni ko wool ma Habib. ci ñuy wax ci Habib. ci ñuy wax ci Habib. abi abi ni càppit buntu bi ubbi ni asalaamaaleykum sunu kaw sëriñ Mansour ni ma waaw nag faf nag Habib damaa bëgg damaa bëgg yeggale burdu bi yeggale burdu bi ci Tiwaawan ci guddi gi ci la waa Tiwaawan soxlaa say taalibe soxla la nga bàyyi ñëpp dem fekki alaaji daam ci këram ci ay ganam bis bu set bu jotetee yow mii yaa may fëgg kër sëriñ bi ñu ngi lay gërëm gërëmati bu baax a baax si Malick kon ñu ngi gërëm dëkk bi yëpp cheikh gërëmoon na leen ba noppi waaye dëkk bii nag dafa nekk dëkk boo xam ni du du doy leen ngërëm ndax seen jëf a tax kon ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sëriñ Habib mi ngi nii ànd ak euh, ku ku ñàkk solo la de Sambu <laughs> ñoo ko déggandoo di xaritu ñépp nag ngir jëmmi rasulillahi kenn du moom sëñ Habib jëmm jiitoog di di sàmbuub am nga junniy soppe de yoo xam ne nii sàmmi moo tax ñooñee yokk laa bëgg ndax kër fekku néew doole nga yëkkati ko ba ñépp dégg ko yombul te moom nga def ci moom Serigne Mansour daana wax ni. ku jege borom laj ko lañ xeeñ. ku jege borom laj ko da ngay daal di xeeñ parfum nag ah, ah, waaw kon. loolu rek la. yàlla na la jig. sëriñ bi yow di def lu baax. ñu naan yàlla na la jig. kooku de moom ay wax la rek kuy def lu baax danga am lu baax fala budd koo xëy defoo lu baax ak koo mën a doon ak ku la mën a jur. ak foo mën a bokk ak noo mën di wéy dara dara zéro fois zéro fois zéro égale zéro zéro zéro zéro sëñ Habib léegi li fekk daal moom nga bàyyi Tiwaawan ay gor ay julit jaamikati yàlla nit ñu baax déggoo moo am fii ci kër Ngunta kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi gërëm sunu doom ju baax jii toog nag di Abdoulaye Gaye borom xam-xam baayam gàmmul naa ko fu nekk Babacar Diop ak jaxeer mi ngi ci biir mbooloo mi soxnaam mooy borom kërum ndey tikke njaay ministre la ñooñu ñaar moom ndax am na nu reer waa fii kuy fanaan reer jaxeer Ndiaye Tické Ndiaye ministre tey Ndiaye yéen ci biir njóobeen ndax am nañ seeni reer waaye nag nanu ñaan yàlla ba yàlla dimbali nu rek ñu ñu am lu ñu mën a teg seen kanam sëñ Aliou Diop dugg si na ñu ngi gërëm Ablaye Gueye bu baax la wax kon kër Ngunta ñoo ngi leen di gërëmaat sëñ maam As bu sëñ Abdou Karim Sarr maam as fi dëkk kenn la ci ñun doo gis àll mukk ci maamam soxna asu si daam gàmmuk soxna asu si reer yi tardé sëñ Muniru Saar dem ci rajo ba nuyoo waa kër ngunta waa tàkko waa tobbi jóob waa wàqi soxna asu si nee na réeragul na ngeen ko xaar ba réer ñëw moom booba temps defe naa ni xale bu ndaw lay doon kon maam as nee na boobu juddoogul maam as saar sëriñ abib li ngeen gën a bëgg seen biir mooy defar bokk xale la waaye nit ku yàlla baaxal la yow mii sa bopp magoo ci Tiwaawan de waaye li nga defar ci Tiwaawan am na mag ñu nekk Tiwaawan mag la fop te defaruñ ko loolu lay dëgg kursub Tiwaawan di gàmm ca bis set Tiwaawan gépp teew Cheikh Serigne Momadou Moustapha toog nga solu taal sa oto di ko toog ak moom yow kott yaa koy def kon nag si alhamdulilah alamin daaw dama ko ni booy demati course ba woo ma mu ñëw gunge la ndax man damaa nekk koo xam ni ragaluma dara lu baax rek laa bëgg surtout nag lu baax Cheikh Tidiane Sy Mansour Sy Abdoul Aziz ah, Sëñ Moustapha lu ma neex rek daf ko jëfandikoo ko ci ñoom ndax nag yàq baaxul as gor day defar te taalibe yi te taalibe yi lu ci gën a bari bala ñoo am rek lu leen neex rek ñoo ko def déggal nii nga defati si gàmmu ñëw nga ni fang solo te daa mën a sañse nag jaar ci digg gaa ñi dagg ci digg ba dikk toog <laughs> yombul de waaye Simaël yaa ko réussir gaa yi nag bàllin màq de léegi nag fi toll tembe dama damaa waxoon ca njaal benn gi du ma guddal waaye Aliou Diop rek moo ma ko yóbbee kon ñu ngi gërëm ñëpp di di gërëm sunu cheikh yi di gërëm sunu mag yu baax yi toog El Hadj Malick Diop wallaahi la azim bala maa xam ku ko gën mbaa ma gis ko alaxir rek lay doon ndax mag bu ko neexoon gone du foog moom. ñun kër nag sax du ñuy gone waaye nag suñu ko neexoon du ñu kafak moom te mi ngi nii léeg-léeg dama ko koy wax di ko wax sama goro nangam nangam foreek la cay teg ree yàlla na fi yàgg ci wér yàlla na fi yàgg ci wér Ablaye Gaye baal ma àq de ndax dama laa waroon a jox wax ji waaye nag wokkutu borom rek xam fa xasan wokkatu borom rek xam fa xasan ñu ngi gërëm suñu rakk yépp nag kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bàlli bu baax lii ma wax de bëgg ngeen kontaan képp làmbatu seen mbégte rek moo tax moo tax ma wax ko waaye du wax joo xam ni eh, ju farata la yàlla nag waaye nag suñu bëgg-bëgg la ndax bëgg a xamal sunu doom ju baax jii di sunu gantey fii mu ñëw ak ñu mu fekk si alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokk euh, yi yéen ñëpp Mawlaay Cheikh Mouhamadul Habib mi ngi leen di wax asalaamaaleykum mbokk yi fay leen ma waay waaye sëriñ bi mu ni ngeen fay ko waay ñu ngi leen nee ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar